officiel na li ko waral moo di doomu Sénégal bii di Ismail Jakobs di football ci AS Monaco dafa am blessure këlëbam di AS Monaco démb bi ñu jàkkaarloo ak Ajaccio moom bokkul woon ca match boobe blessure boobu nag moo ko waraloon démb sax ñëw nañ ci ak yéen ci sunuy xibaar yi njëkk officiel na nag ki koy wuutu ca équipe nationale ba moo di goneeg Tëngéej jii di Cheikh Tidiane Sidibé mi nga xam ne àndoon na ak équipe nationale loko bi dem ca CHAN ba doxal te CHAN bi mu jeexee CAF 11 bi ñu génne ne ñoo ca gën a xarañ moom bokk na ca maanaam fukk ak benn yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ca CHAN boobee Cheikh Tidiane Sidibé bokk na ca moom la ñu woon ak ngir mu wuutu Ismail Jakobs ci équipe national A bi loolee officiel na. ñu jugee ci Cheikh Tidiane Sidibé jël beneen doomu Sénégal di Mohamed Gueye moom nag ma ngay football ca US gore moom demoon na ci équipe national u ba waaye tey jii siiwal nañu ne dina dem ci équipe national u bi ndax xam ngeen ca soso woowoon nañu ko waaye moom tamit dafa am blessure kon du mën a bokk ci ñaari match yi nga xam ne war na dox ci diggante équipe nationale u bu Sénégal ak bu Mali ki ko wuutu nag moo di Mohamed Gueye di football ca US gore moom la ñu woo ngir mu wuutu Rasoul Ndiaye ca équipe nationale u ba ñu jugee ci équipe nationale u bi jël doomu Sénégal bi ak almaañ léegi sax mën nañoo wax doomu Allemagne muy Malick Lay Thiaw moom nag ma ngay football ca national bu Allemagne nag ñoo ko woowoon ngir mu footballal leen waaye jamono ji nag équipe nationale A bi nga xam ne Hans Flick moo leen di tàggat fa lay dem li ko waral moo di défenseur bi nekk ca Southampton tudd Bella Kocca moom nag keroog bi Tottenham di jàkkaarloo ak Southampton dafa am blessure laata ñuy mi loolu moo tax Hans Flick mi tàggat équipe nationale A bu Allemagne Malick Thiaw la ngir mu wuutu ko ca équipe nationale A ba ñu jugee ci Malick Thiaw ak équipe nationale bu Allemagne jël doomu Uruguay bii di Ronald Araujo moom nag démb bi muy football ca classico ba bi mu jeexee dafa am métit yu mu doon yëg kon nag dina toog ñaar jàpp ñetti ayu bés du dugg ci terrain football xibaar boobu nag neexul waaye mën naa bañ a jural benn jafe-jafe waa Barcelone li ko waral moo di ñoo ngi ci datu FIFA trêve ci la ñu jëm équipe nationale yi ñoo woote te li waa Barcelone jàpp moo di bu ñu jugee ca trêve boobee dina mën a wér ba ànd ak Xavi ca liggéey ba waaye AS yéenekaay nee na lu mu gàtt-gàtt dina toog ñaar jàpp ñetti ayu doora door ci terrain di football muy Ronald Araujo ñu jugee ci Ronald Araujo waaye Barcelone googee duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano waa Barcelone dañoo bëgg doomu almaañ bi di Gundogan te fawuñu ci ay mbiram nañu waa Barcelone door nañu waxtaan ak agent wam ngir lan jéem a xool nu ñuy doxalee ngir bu saison bi jeexee mu jugee ca Manchester City ñëw jàppale leen te waxtaan bi nag mi ngi jëm kanam ndax diggante Barcelone ak agent wu Gundogan dafa ratax loole mën naa tax mbir mi yemb bu saison bi jeexee mu buub ay kaakaam jógee ca sa City dem ca Barcelone doxal xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xam xamle. ñu jógee ci waa Barcelone ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Real de Madrid ñoom nag seen latéral droite ba am nañu fa jafe-jafe. ndax xarbaxaal mii ngeen di gis jamono ji doxalu cëkk la boobee match bu jot day gën a yées loolu nag jaaxal na waa Real de Madrid te jural na jafe-jafe Carlo Ancelotti mi leen di tàggat jamono ji li muy xalaat moo di yóbbu Nacho ca latéral droite ba mu doxal ndax ay jamono daan na football la Lucas Vazquez latéral waaye Lucas Vazquez tamit jamono ji doxalut Carlo Ancelotti nag li muy xalaat fan yi moo di yóbbu Nacho ca latéral droite ba mu doxal bu ñu sukkandikoo ci Marca yéenekaay ñu jogee ci waa Real de Madrid ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa FC Séville FC Séville nag soo moytuwul waxtu yii di ñëw dinañu dàq Jorge Sampaoli mi nga xam ne moo leen di tàggat jamono jii AS yéenekaay moo xam le xibaar boobu ndax doomu Argentine bi doxalu ci Séville ndax Séville googee bu ñu xoolee juróomi match yi nga xam ne moom la mujj football la Liga Santander ñaari victoire képp la ca am ak ñetti défaite kon jamono ji doxaluñu te ci classement Liga Santander bi Séfi moo jël quatorzième foofu nag du place su Séfi ku xam Séfi xam ne moom ci ñeenti ñi jiitu ci la daan bokk ren nag ma nga ca quatorzième place ba kon doxaluñu as yéenekaay nag nee na soo moytuwul waxtu yii di ñëw ki leen di tàggat di Jorge Sampaoli dinañu ko ñaanal ñu jugee ci waa FC Séfi ak seeni jafe-jafe jël doomu Angleterre bi Dortmund gone gi nag club yi ko bëgg ca Europe bari nañu lool waaye sa Athletic nee na xeex bi nag léegi ci ñaari club yii la muy sa City nekk ca Angleterre ak Real de Madrid nekk ca Espagne bu dee Liverpool moom génn na ci mbir mi bokkatul ci xeex bi xeex bi ñaari club ñoo ci des muy Real de Madrid ak Manchester City ñaar ñooñee ñoo koy xëccoo hmm. ngir kenn ci ñoom jëlee ko ca Borussia Dortmund yóbbu ko ci sab club mu jàppale leen muy Bellingham mii nga xam ne football am na lool yaakaar ci moom xibaar boobu sa Athletic moo ko xam xamle ñu jugee ci Bellingham ak ñaari club yooyu di ko xëccoo jël doomu arsantine bii di Lionel Messi la Pulga bu ñu sukkandikoo ci l'équipe jamono jii nag waa pari ñoo ngi càmbaraat yokku contrat gi nga xam ne bëgg nañu ko yokku contrat li ñu jàpp moo di yokk contrat wu Lionel Messi la poule ga mën naa bañ a gën ci ñoom li ko waral moo di supporter yu bëri bëggatuñu Lionel Messi des ca club boobee te loolu nag li waa club bi jàpp moo di sportivement baaxul ci ñoom te naal yi nga xam ne naal nañu ko loolu mën na koo xajamal maanaam seeni projet loolee mën na koo xajamal moo tax jamono ji yokk contrat Lionel Messi ca Paris ma ngay waaj a suuf bu ñu sukkandikoo ci l'équipe ñu jugee ci Lionel Messi dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag seen ñaari gone yi woon nañu leen kenn ku ne ci sëb équipe nationale muy Choupo-Moting ak Musiala bu dee Musiala moom démb demoon na ca équipe nationale bu Allemagne waaye dafa am blessure ca hanche ya maanaam lupp ya ci la yëg métit loolu moo tax delluwaat na ca Bayern de Munich ngir faju bu dee Eric Maxime Choupo-Moting moom it équipe nationale bu woo woon nañu ko waaye ca mbagg ma lay yëg métit kon du mën a ànd ak équipe bu Cameroun ngir jàppale leen